xaaj bu njëkk bi ci ñaari xaaj yi sant na ay taalibeem ñu sóob leen ci ndox nettali bi mu ngi aju ci mbirum sóob ci ndox ci bi weesu jàng nañu ne piyeer war na nit ñu bare ci bësu pantukot lu tolloog ñetti junni nit gëm nañu ca bës ba te ñu sóob leen ci ndox ci yaxya lañu jëkk jànge lu jëm ci sóob ci ndox yaxya dafa daan sóob ci ndox yawut yi tuuboon seeni bàkkaar loolu ngir waajal ñëwu musalkat bi la woon yaxya dafa daan waare naan nit ñi ñu tuub seeni bàkkaar mu ne leen sët bi yàlla dige dina ñëw ci diir bu néew ñu waroon a fagaru balaa muy ñëw yaxya sóob na ci dexu yurdaan ñi tuub seeni bàkkaar loolu mooy yaxya nuural na leen ca biir ndox ma sóob gi ci ndox misaal la woon ci ñi ci des wone na ne xam nañu ne yelloo nañu dee ndax seeni bàkkaar wane na itam ne gëm nañu ne yàlla dina yónni musalkat bi ci diir bu gàtt yaxya ne nit ñi moom ndox lay soobe mu ne leen kii topp ci moom ci xel mu sell mi la leen di sóob yéesu itam dem na ci yaxya ngir mu sóob ko ci ndox yàlla xamal yaxya ne yéesu mooy ki mu dige woon yaxya xamoon na ne yéesu amul bakaar xamoon na ne yéesu soxlawul woon ñu sóob ko ci ndox ngir wone ne tub na ndaxte amul woon benn bàkkaar kon yaxya xamoon na itam ne moom yelloowul soob yeesu yéesu tontu ko bàyyil noonu ndaxte war motali lépp lu jub noonu yaxya nangu màcc saar ñett aaya fukk ak juróom kon yaxya soob na yéesu ci ndox ngir li mbind mu sell mi wax lépp mat bi yeesu génnee ndox mi xel mu sell mi wàcc ci moom ci melow pitax te baat bu jóge asamaan dégtu ne kii mooy sama doom ji ma bëgg ci moom la amee bànneex Macca saar ñett aaya fukk ak juróom ñaar foofu la yàlla wone ne yéesu mooy musalkat bi ak doomu yàlla ji bi di dund ci kaw suuf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 bës bu nekk ba keraa àddina di tukki macca saar ñaar fukk ak aaya fukk ak ba ñaar fukk léegi ma leen benn naka la Yaxya daan soobee ñu dafa leen daan soob ci biir ndox ñaar soo sobug yaxya ci ndox lan la tekki woon mu ngi tekki woon ne nit ki nangu na ne bàkkaarkat la te yelloon na dee mu ngi tekki woon itam ne nit ki gëm na ne yàlla dina yónnee musalkat bi ñett lu tax yaxya xam ne moom yelloowul sóob yeesu ci ndox yàlla xamal na yaxya ne yéesu mooy ki mu dige woon yaxya xamoon na ne yéesu amul bàkkaar ñeent lu tax yaxya soob yéesu ci ndox yaxya soob na yeesu ci ndox ngir li mbind mu sell mi wax lépp mat juróom ci sa xalaat lu tax sant ñu sóob ñi gëm ci ndox ci turu baay bi doom ji ak xel mu sell mi loolu mu ngi tekki ne yàlla mooy seen baay léegi borom bi yeesu mooy seen musalkat te xel mu sell mi mu ngi dëkk ci ñoom ñu nekk ay këri yàlla